jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte tey ñu teew fii si arène nationale yaakaar naa ne Habib production wala Habib Farxat production moo ñu fi woo ci nim nu fi woowee nag yaakaar naa ne yàgg nañoo andi li nga xamante bi ni mooy ay combat amateur yu neex gis ngeen bi mu fi mujjee ci arène nationale bi macha allah ni mu ko def tey nag mu waaj ñu ci beneen facette boo xamante bi nii macha allah am na solo ñu ciy jiital nuyoo ko ci mel ni Ousseyn wasaare production ku ci wasaare lamb ku ci mel ne Ami Collé suma jigéen jigéen ju man góor macha allah am na solo trop. ba tax na tey nag ñu andi leen affiche yoo xamante bi nii macha allah bari na promoteur yu ko bëggoon bari na amateur yu ko doon waxtaanee. yàlla nag dogal na ki nga xamante bi nii mooy wërsëgam moo ko jël muy faraxat production macha allah nga xam ne saa bu ñëwee nag làmb yëngu saa bu ñëwee aada ak cosaan ak gumbe bi lépp dina am si biir làmb mu andi leen cinq tonnes mi ngeen xam mi daj réew mi ki nga xamante bi nii moom moo dem ba ca rompee Sandaga mu fay sangoo gàllaaj na palee ko dese booba léegi nag gisaguñ ko mu dem pale sama gos maa ngi fi am ki nga xam ne mooy Wassintor doomu ñaay cokkeer bi yaakaar naa ne boobu nekk na combat boo xamante bi nii bokk na ci combat yi ñuy bàyyi xel ci saison bi maa ngi fekk Habib Faraxat production beneen combat bi ci toftalu diggante jàmm euh, gën la ak pikin avant première Siteu Papa Sow mën nañ koo xaar fii wala avant première Siteu Ama Balde caatu Fora mi ngi nii taxaw yaakaar naa ne day bëri ci jour boobu ki nga mooy alliance Balde mi ngi nii taxaw combat boobu nag il fallait que ñu taxaw ci parce que caatu Fora ndaanaan la bu jógee tarkindaa yëpp dinañ jóg dar dar ko jàmm gën Fora tali maam jaar ñëpp topp si ginnaawam waaye ki muy dajeel xàmmewul jaaj ak joor mboolem daama buñ ko mës a jox da koo door mu daanu ku weddi laajal Sa Thiès wala dund ay dóor mu daanu moom moom loolu ay yëfam la yeneen lay def beneen combat bi bokk na si ki nga xam mooy ardo bu golf gaynde ndaanaan bi ngeen xam nga xam ne bi mujjee fii ci arène nationale bi gis ngeen ni mu ko def mboolem kuy morom moom bàyyi na ko xel moom ardo nga gis bi mu fii mujj digganteem ak yéri deux digganteem ak euh, nu mu tuddati euh, waaye xale ba dëkk waaye Las Palmas dama koy fàtte jël bu rëy ba mu ko daan yaakaar naa ne beneen jël la dorma ca xabal bu rëy ba ca top 5 ba bi mu fi mujj nag moom bañi kayre la woon grand combat mu am defet ki muy dajal aussi tamit di Saba borom Daaru Salaam Saba borom Seras borom ñetti waajur yi nga gis moom tamit bi mu fi mujj ñoom ñaar ñëpp ci grand combat lañ mujj andi fa mobilisation bu takk mais nag dañu am defet abi boole leen leen dinaa xam yéen ñaar seen jàmbaar gi ak seen garmi gi ak seen mbooloo mi duma leen bàyyi seen supporter noonu ñuy mer dinaa leen boolewaat grand combat dundal amateur yi yaakaar naa ne maa ngi fekk Habib mooy njëkk ubbi borom faraxat production dañ koy ndokkeel ci weeru koor gi ñu nekk macha allah di ko bal ak di ko balu ak ñu ngi lay siyaare. waaw maa ngi leen di delloo siyaar bu baax a baax di nuyu ñi fi teew yëpp. Mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay di leen massaw aussi di leen baalu bu baax a baax. Mm-hmm. ndax dañ fee woote woon donc mm-hmm. ñëpp ñëw wuyu suñu. rawatina ñi nga xam ne ñooy ñoo ñooy ñooy mbër yi. laay mu wax. donc wax dëgg yàlla eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen baalu àq ci koor gi. Mm-hmm. di leen nuyu aussi waa site internet yëpp rawatina waa wasaare. Mm-hmm. vraiment c'est un gars boo xam ne mu ngi ciy jàpp bu baax a baax ak Ami Collé maa ngi leen di nuyu bu baax ak ñi fi teew yëpp. Mm-hmm. di wax ne ñu ngi dem ci bés boo xamante ne eh, mun naa wax ne eh, bés la boo xamante ne Sénégal yëpp a ko yàkkamti. man Habib nag yàlla moo ma ko jagleel. muy diggante ki nga xamante ne mooy. Ardo ak. Saba Saba. Mm-hmm. donc ak yeneen yoo xamante ne gars yi dañu ne sax est-ce que yooyu gënul neex grand combat bi. Mm-hmm. parce que. nga kontaan cinq tonnes fu mu waxee. Mm-hmm. kontaan alliance Balde. ak yi nga xamante ne mooy caatu fora aussi mu nekk loo xamante ne kon donc c'est la famille. donc man may ñaan rek ñu ñaanal ma ci jàmm. ñu ñaanal ma ci réussir total. ah indi nañu suñu caution fii tey. fi nga xamante CNG. bind nañu suñu lettre pour le 24 juillet. le 24 dimanche le 24 juillet. Mhm. fii nga xamante ne mooy arène nationale. Mhm. moom la ñu ñaan yàlla. Mhm. ñu am bés boobu. ñii ñu laale fa. waaw ku ci nekk jot na sa avance. kon donc yaakaar naa ne li ci des bareetul. voilà. macha allah am na solo jouru combat ba lan lañ ci mën a xaar ci innovation ak ci caada ak cosaan. waaw képp ku xam Habib xam ne moom day innover. Mhm. bés bu ñëw day wuteeg moromam. macha allah waaw. waa Gumbe woo naa leen fi. Mhm. keroog bi ma ñëwee ci làmba ji paase biñ ma gisee dañ ma ne déggatuñ la. macha allah ma ne leen di ngeen ñëwaat. Mhm. xam nga. ak askanu séeréer saafen yi nga xam ne man falaa bokk. sama yaay nekk séeréer saafen fàttewuma leen benn yoon saa yu ma tëggee làmb dama leen di woo. bii nag mooy raw. waaw bii yaakaar naa ne dinañ gis ay muuma sax yu yoo xam ne dañuy ñëw ci yëf yi pour ñoom tamit ñu indi seen spectacle. macha allah waaw. yaakaar naa ne am na solo kooku mooy Habib Faraxat production yaakaar naa ne damay dugg si ñaari mbër yi nag bala ñoo ñëw dinañ buñ waxee ñaari mbër yi ba pare dinañ waxtaan ak moom sponsor yi nga xam ñooy jàpp ci bis bi ndax am na ay sponsor wala amul sponsor même bu amut it ñan lay lancé appel pour ñu ñëw jàppale ko cinq maa ngi lay di la bëggee. waaw Mouranta maa lay delloo ziar. waaw di wax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di wax mention spéciale pour dof yi ñuy bëggee yëpp di bëggee waa àdduna di bëggee surtout waa géejawaay Mm-hmm. waaw di wax affaire moom 5 tonnes moom benn ndaw la bu judd 1997 sixième mois troisième jour hôpital Ndamatou 23 30 si si faire de présenté di bëggee dof yëpp di bëggee képp koo xam yaa ngi bëggee <laughs> di masaw tamit waa Louga quoi mooy sas bi fa xew mooy femme boobu nun doon am doom far décédé ndax ñun jigéen ñu jur donc tamit jigéen mooy suñu yaay mooy suñu lépp loolu dañ ci masaw di wax xama pour hôpital waa Louga pour ñu gën see jël misir barrière daal. waaw te xam ne jigéen moom xama hmm. dañ ko war di ko di ko di ko sargal ko tatagal. ñu ngi masaw kooku noonu di masaw borom këram bi xama hmm. di ko wax na moom lu métti rek lay tegub jaamam. am a a fi gën a waa gën a am mais gën a métti amul. tey de wax nga daal bu baax a baax ak xam nga bépp xam ne affaire bi na la. am dama tëdd sama man kese jooy xam ne loolu noonu tamit ndax xam nga jigéen yaay te xam ne ñaan yàlla am ay soxna am ay après quoi am doom mu dellu xam da nga xam dafa métti quoi vraiment ñu ngi koy masoo baax a baax. ku jaar ci affaire lan. waaw apporté wu ma la wax noonu xam nga. Mm. bi. ndax vraiment li mm-hmm. bari mm-hmm. a bëree lu ko gën a pire la ma fay. macha allah. ci dama ko ci remercier ndax combat bi ñi ko bëggoon bari ndax yaakaar jour bi muy taxaw sax am nañ promoteur wax man d'accord woon na ak moom. Mm-hmm. dafa yoon xëy avance génn. mais nag si loolu noonu ndogalu suñu borom moo tax mu tëggu ko de la part de Ouzin. ak sans ak wërsëg. waaw xam xam yàlla moom yàlla noppi na quoi. Ah. waaw waaw noppi na. mais waxal ci waa ji booy bii nii waaw dinaa si ñëw tey tey koor weeru koor ah, lañ. gudd kat. waaw weeru koor lañ di baalu ak ñëpp di baalu ak àdduna. ñun ñëpp di sant Ouzin di sant Ami Collé. Ah. vraiment ndax jigéen gu baax la jigéen gu mën góor la daal. macha allah am na solo mënagoo dem Wassintor lan moo la dugal ci moom parce que yaakaar naa ne seen coow bari na bëri ngeen fii ci arène nationale bi te leen avance. waaw xam nga moom li mu def. ah loolu noonu. xam nga dama dikk ci Birasène ma jubal si moom. dama ko xoolaa ñaari yoon ma ne ko ndax làmb nationalité nañ pour dóor nit mu dee irsan pour mu dee quoi dara du la ci topp. loolu laa ko laaj. mu ne ma loolu te te te te yaa raison quoi mu ne valable ma la. d'accord mais barke Seydina Mohamed laa lool billaahi wallaahi wa taala sama combat ki bëgguma si jàmm barke Mohamed bëggoo si jàmm barke leeru alxuraan bëgguma ci benn yoon Serigne Bamba xam na ne laa waata loolu muy wax noonu gëmu ko neexee lax mu samp tànge suul maa ngi nag sama kër nijaay fi ma nekk Tivaouane Peulh maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di nga ci ñëw xeex ngay def dégg waas maa ngi lay siyaar baax di la bëgg jërëjëf yàlla suñu borom jërëjëf yàlla suñu borom jërëjëf yàlla suñu borom ginnaaw bu ma sante yàlla jëlu ci yonent bi di sant samay ñeenti waajur di sant sama yaay bu baax a baax a baax sama yaay dafa sonn ci man waaw mu daan may bàyyi ma wax quoi waaw moom daa jël temps wax ba doyal waaw dag may bàyyi man ma wax damay sant sama yaay dafa sonn ci man man aw ma mag bu góor suñu kër man kese maa fay doom bu góor sama papa dafa sonn ci man sama maam aw ma seen fay di sant sama seex bi mandal muy respect di sant sama mafia bi ñoom duudu ñoom gaay yeneen gaay yi amuñu temps quoi moo tax ñëwuñu. di sant koñ bu ma jógee muy ñàccu kër fa laa juddoo fa laa yaroo Dakar Plateau laay représenté mooy loolu kii bu dee jàng ñoo ko gën a jàng man man entrée en sixième jàng naa ba am entrée en sixième waaw. kon gënu kon gënuma jàng ko kon buy taxaw di wax ay français rey sonal boppam kii man moom na wax ci ñu làmb ji mu doon damaa doon ndaw. barki Saara Fall bëre Bawol moo gën a métti fuuf bëre Ndakaaru ma bëre Bawol onze combats am six kaw juróom benn personne du ma leen doon ñu daanu moom xam na lu ma koy nekkoon na igri ba mënul daan mbër suñu moo tax mu jóge fa barki rosu yi laay Bébé Elton bi ma daan cent vingt kilos la moo gën a diis kii fuuf te dama dama koo lonku dama ko lonku mango wàccee ko mais est-ce que bébé Elton ak 5 mi benn la. waaw yow kii Moussa daan bër kii ñu mu daan Bambey tax la leen Ngoy Aliou man ñii ma daan Iba Mar Diop arène nationale gi laa leen daan bu ñu dajee fii bu ñu songoo gis nga lu ma ko da bu damaa mën a bëre damaa ay ci ci genre Pagnol Gambie yi nii ñii collègue bii nii barki Rosu yi man ban soxlawu ma ñii xam nga ñan laa bëgg a bëreel. non non bi dama koy sant gërëm. parce que comme man moo tax ma jël ko mais xaalis moo tax ma ko parce que man dama def 4 combats 4 victoires moom mu def 4 combats 4 mais xaalis bu bari bu ñu ma fay moo tax ma ko mais man moom kii du yoonu xam man kan soxla woon gabar sin wala king kong man poids yooyu laa bëgg a waaw. nee na 4 combats la def 4 victoire nga def 4 combats 4 défaites xaalis moo leen boole. waaw xam nga loolu bu ko waxee day wax waxu amateur ak waxu neexal. 5 tonnes 5 combats la am 5 non 7 combats 5 victoire 2 défaites. xam nga lu ma siiwal rompé Sandaga moo a siiwal mais du question ay lambu. lu leer laa la wax. sangu ba mu daanda mm-hmm. barki Saadu tiim. kii nekkoon na ikiri bara jon mënu fa daan ku fa gën a ndaw mënu koo daan loolu moo ko jugale suñu ikiri ba maa yi ko téye doon lu ndaw toll ni booy moo daan damaa mën a bëre dama ay ci catégorie bii kii yaram bi baaxul barke Rasulillah mais décidé na man de alxuraan ak jukki jukki baax na la non ki ki ki du dem pobu ngi du dem du gëmul dara man fils laa jaam fils waaye ñu Kayda tey dal rek aduna mu aduna lépp tiraanga gis nga oui ma maa ngi nuyu au passage écrit écrit Bada muy wax noonu waaw damay dil maa ngi nuyu au passage écrit Bada muy wax ndax su ma bëggee làmb de la part bokk nañ ci comprendre ma la maa ngi jour combat sakis ak nekk réel si laa ànd ak ñoom mbéy guy ak Nokia mm. yaa ngi si la la ma mbéy guy gi waxee ne ma tëbal quoi mooy porte Iba Mar porte bi fee de foo bi te connais bien ah. si tëb fekk ki dëgg laam dafa teg fa benn semé quoi mais gisuma ko mooy policier dafa am policier bu monté foofu dama kaa baar dama ne allah akbar sami allah mais policier dafa ma reetaan di ma reetaan tellement moo gën yomb du may quoi kii wax ci lamb ji moo gën muy wax ay waxu dof man moom ñoo war a dañu war a reyante booy wiir wiir bi da nga man kor man mii promoteur bee ngi nii na barki Sadou Fara bu ma demee naa wax sóoru na na dem Dantec mu mu mu luwee corbillard bi mu luwee ko andi ko ci stade bi parce que kii kii dama dama kaa bëgg ba dóor ba corbillard moo ko war a jëlee ci làmb ji. Pape Diagne Sénégal day aaye corbillard bi. waaw man mi la non du ma woote de. barke Seydina Mohamed laa mu daan li ma lay wax ni kafantuuma de barke leeru alxuraan man ak dama koy duma jël ma intention bi rek moom de xoolal na leer na sama diggante jël ma moo daan tax xam affaire man sun hôpital sun hôpital sun hôpital sama gaale roab de xam sama eh, kër ñaata ñaata yaa ñoo fa dëkk booy ñëw ñu fii pour bëri loo neex wax la. waaye soo xam-xam bu ma daan. oui ma barke Seydina Mohamed dama la duma moo xam-xam bu ma daan. mbay ma yow nga baax di wax cinq kaay lamb yi da nga war a def lendemain cortège ñu bëri ko def cinq kaay dina Mohamed lamb yi war a nekk lendemain cortège nga léegi léegi léegi loolu yaa ko teree neex loolu après dañ koy def ma ta nga doy barke Serigne Touba Mbacké saru fare ma la yow da nga yabaat cinq kaay bu leen laala amul doole moo xam xam cinq kaay amul cinq kaay amul cinq kaay cinq kaay eh na kenn ñëw jàpp na cinq kaay barke saru fare ma la wax parce que Serigne Touba dama am doole mënoo maa yëngal dama am doole. dama am doole mënoo maa yëngal. parce que Serigne Touba dama am doole mënoo maa yëngal. waaw yow. billahi wallahi wan non taxaw doon fii fii la taxaw non taxaw. taxaw nga taxaw. doo ma laal doo ma laal doo ma laal doo ma laal waaw. doo dara laal la. baax di wax rek. Seck soo la sa daal nga rafet waay. Seck Seck. sa li ngay ñàkk nii. wax ni fala li mu wax nii. baal wooteel da koo gëmul man chaque jour maa ngi Dakar plateau chaque jour. waaw wooteel wooteel. xam nga man ñi xam ne yab nañ ma bi may ñëw sax buñ ma seeraane dinañ ma mere barke leeroog loolu rek ma si metti ñi nga bi may ñëw yab nañ ma wax. Fass waay wooteel. am na lu ma metti quoi barke Serigne Touba am naa lu ma metti billaahi wallaahi wa taala mais képp koo xam ne woon nga ma téléphone yab ma xam nga waxoon ma pour ma calmer wu maa bu baax a baax mais xam nga tamit tubaab ne il faut le mériter pour déwén quoi boobu moo ab moo moo moo réglé wul moo tax mu demee nii mais maa ngi sant ñëpp ñëpp di sant koo xam ne tamit xam nga kenn la si man dafa yëkkati oto may oto la yëkkati may ma wallaahi lazi. dëgg yaa ngi dégg mooy Birama Diouf Serigne Birama Diouf Serigne madame Diouf papay bébé Yacine. maa nga san combat maa ngi woo suñu maire koñ ku ci mel ni Racine Talla maa ngi koy woo lu mu ñëw jàpp si bu baax a baax ñëw ci am masse ta drapeau bi nii dañ ko war a nekk drapeau coow Wally Seck lañ ko war a tuddee na leer drapeau Wally Seck la war a ma daan ko pare gi jour bi dem yëg kaw kaw tribunam barke Seydina Mohamed lu leer laa la wax ah waaw askan bi la fa nekkal man la 5 tonnes dof bi maa lay woo combat bi dañoo bëgg nga ñëw nga ñëw en masse quoi ñëw dooleel ñu ngir yàlla laa war a sol nga accordé suñu drapeau man Habib Lekran dinañ ànd ak sama adversaire comme en tant que ci weer koor Habib Habib damaa bëgg man ak nga ñëw ginnaaw yaa fi nekk Lekran gim Seydina Mohamed Wally Seck maa ko na woo naa Mbaye si Ndiaye Mbaye si Ndiaye nag nee ma waaw dégg naa rek la ma wax mais dalaa nañ jéggi dem si Wally Seck këram dem foofu noonu ñoo ne ko tey ñun ñoo sabablu pour drapeau bi ñu bëre drapeau am yaa maa ngi waa géej waay di woo ma àndal ku ci mel ni Baye Mbaye ak Thierno Diop ku ci mel ni Baye Seck xama ak rafet xama ku ci mel ni Lat VIP xama ñoom diis gars yëpp waaw di woo sama maire koñ na bëgg naa mu jëndal ma ay bolog yu bare bare bare bare bare bëri waaw ok de la waaw man maa woo ma jógee waa Dakar waa Ñaccu Kër ah. sama patron Ibra Thiam Abdoulaye ñoom Yande Diop Issa Racky monsieur le maire Seydou Camara ñu may jàppale ñëpp maa leen di sant di leen gërëm bàyyi ma kenn adduna man Dakar présen Dakar Plateau laay kii nii lii la am ci làmb ji bu koy woo mën na profité wax lu muy wax mais fu ma dajeeg yow dinaa dinaa wegg sa bëñ ba keroog làmb ji leer laa la wax fu ma dajeeg yow